jërë ngeen jëf amee coronavirus ci mim réew boo ca wéree coono la boo ca faatoo coono la enquête dina nañu coronavirus bi mooy jàngoro joo xam ne dafay fitnaal nit ba ci biir bàmmeelam li koy firndeel yéen bi nañu moo di li xew fan yi ca banlieue bu Ndakaaru ay nit faatu ci coronavirus bi ñu yóbbu leen bëgg leen a denc ci armeel yi ñu leen bëgg a denc askanu gox ba jug ne kenn du leen fa ñi ko mujjee def di askanu jàmba gën mbaaw socio leen déggee ñuy wax da ngay xam ne ak tiitaange ak ragal musiba moo leen tax di wax njiital SNEIPS di yéenekaay bi ak tiitangeeku jaaxle moo ca mën a ñàkk ndax képp ku faatu ci coronavirus bi néew bi sapeur pompier dinañu ci def lu war ba armeel yu ñu ko mën di suulit du fa sulli benn danse mu ne li xel mënut a nangu moo di am ñu taxaw ne doomi Sénégal ya faatu bitim réew ndax coronavirus bu ñu leen bàyyi foofee nañu leen indi ci réew mi suul leen ñu nangul leen ko ba pare am ñu bëgg a taxaw ne ñi faatu ci coronavirus bi kenn du leen suul ca seeni armeel Al Alassane Sall gouverneur bu Ndakaaru ne ci la Sénégal loolee du jëfi sénégalais te it du jëfi jullit kon jëfi lu mu grand place ñu weesuwul jëfi nit ku tàggoo ak sagom général de brigade Mor Seck di leeral ci grand place ne bépp néewu coronavirus bu ñu jangti-jangtee jëme ci armée rek nañu xam ne lépp lu di matuwaay jël nañu ko ca ki ñu bëggoon suul keroog ci armée di jàmm gën si yi te ñenn ci askano jugéen na kenn du ko fa suul mi ngi ci l'observateur ubbil yéenekaay bi Moustapha Guèye la tudd ñeent fukki la amoon newoon marchand ambulant moom dem si yàlla Moustapha Guèye l'observateur nee nañu ko soppoon loolu la mbër de Fass ba kon ci hôpital ba la ko dale ndax moom ñaari moom mu ñaar fukki at ak lu teg mi ngi sooxaaleeg ñaari jàngoro yooyee kon tey bu ñu nee dafa corona te coronavirus bi moo ko rey nañu xam ne corona bi mi ngi ko jëlee ci l'hôpital ba ndax ñoom ñi di mbokkam musuñu koo dégg ci moom moom mi ñu ne woon kenn du ko suul ci arménie jàmm gën si yi la wax nañu ne ñi waxoon loolee ba ndi woon fa fitna caxat-caxate woon watab service di seen baag bu Croix Rouge ba am na ñeent ci ñoom ñoo xam ne jàpp nañu leen police jàmm gën si kàmbaaw moo leen jàpp ña ñoo ko sooke le quotidien nañu ci réew mi moo togg fit fit nañ ñëpp sapeur pompier yi bu amee ko faatu ci coronavirus bi ci réew mi a suul te coow du ci am moo leen di jaaxal boole ceekit feebar bi mi ngi rey di dem léegi Sénégal romb na ñeen ne ko ñeen fukk ak benn lañu ñaar ñoo faatu démb kenn ki genn góor la gu tolloon ci juróom-ñaar fukkeet ak juróom ma nga faatoo ci l'hôpital Fann keneen kiit geneen góor la gu tolloon ci juróom benn fukkeet ak juróom ca l'hôpital Ndamaatu bu Tuubaa la faatoo journal bi gis ne jàngoro ji bu doon day dox ci réew mi léegi mi ngi waaxu mi ngi dëgg tànk yu dëgër di dem ñu dëgg tànk yu dëgër dem ci Vox Populi ay xultoo ki ñaxtoo ki njàmbat la xëyee mi ngi ko jëlee ci ñenn ci askan yuy diggoon dimbal ak njàppale ci jamonoy coronavirus gi ñooñee yaakaar ju tas mer mu rëy ak jaaxle la ñu boole jamono ji li ñuy bañ moo di toog di xaar ak séntu ndimbali ba coronavirus bi far jeex ci réew mi Vox Populi nañu muy ca Ndakaaru di ca Tëngéej di ca Kees Kaolack jàpp Linguère nee nañu ceebu Macky sàll bi gisuñu ci sili miina kuntum aala miina badar xeetu ceeb ba sax xeeñu leen kenn ci ñoom di mox sekk nañu ci bi xëy na ceeb ak dëwlin ak suukar ak saabu pat alimentaire yi Macky Sall dige woon mëñ Mansour fay waroon koo séddale dafa réer ci àll bi Bakary Ndiaye di keneen nañu ci journal bi moom kay nañu ko nangu rek gouvernement bi jaarati nañu ci suñu kaw dëgg nañu wëndeel defati nañu ñu ko dóorati nañu beneen borom kër bu doon séntu ci ndimbal loolee te gisagu ca dara di mbay gi ni ñu ci yéenekaay bi moom li mu gëm moo di gaaña séddu nañu xaalis bi bu yàgg Mansour Faye mi waral coow leen bambuli nañu ci xët mu njëkku Vox Populi dañoo amee ay jafe mbir yi ni ñu ko bëggee woon mu demee noone ci noone suur soo xamal nañu ne moom Mansour Faye wute wut ak ku dëgg loola ne moom Moussa Faye coow lu mu fay rekk leneen tàkkaat lekk na coow lu rëy di gëm ak l'hôpital yi réew mi ndax dañu ko santoon mu jël fanweeri milliards ak juróom ci fonds force covid 19 yi def ko ci bor bi agence nationale couverture maladie universelle ameel hôpital yi réew mi waaye fukki milliards ak juróom la ca def gorom ba di Macky Sall lu muy def Sud Quotidien bind ne lu jëm ci état d'urgence be couvre-feu bi am ci réew mi takkal nañu ko ci pot ñii nee nañu dafa war a jeex ñi ci des ne ëpp naa def laatir bi nañu ni mu demee yokk couvre-feu bi ci la ñu jëm ne bu ko doon def tey faw assemblée nationale da cee amu yoon la yoon corps de contrôle yi ci réew mi dugg nañu ci coowal Senelec ak Akilee Les Échos mi ko bind wax ñu ne muy OFNAC di ARMP gannaaw bi leen syndicat cadre yu Senelec si siré fas nañu yénee lux mbut contrat boobee Mamadou Makhtar Cissé signaloon waa Akilee ca Senelec waa ARMP magistrat bii di madame Tall la ñu tànn ngir mu doxal instruction bi waa OFNAC it jël nañu dossier bi dénk ko service yi ko war a lijjanti ñu lijjanti ji ci l'observateur scandale bu rëy bi waa police lijjanti mu di lu jëm ci vidéo saay-saay yi ay gone doon def ci appartement ba yëf mbir moomee pëlis teg na ci loxo fukki nit ak benn ci fukki nit yi ak benn yooyee juróom-ñeent yi ay mineur lañu ci juróom-ñeenti mineur yi am na ci ñeenti xale yu jigéen ñaari la ñu ko defee ba ca des ca Maris ñi doon gérer ñaari appartement yooyee yéenekaay bi nee nañu jàppale nañu leen libération nañu benn vidéo bi ña ko defee ci résidence Zeyna ga ca Maris benn bi ci appartement meublé bu nekk cité kër góor gi ki gën a tuuti ci xale yi nekk ci vidéo bi fukkeet ak ñeent la am leneen lu am ci vidéo yooyee libération nee nañu mooy da ca am ñeenti mag majeur yoo xam ne ñoo doon coacher xale yi di leen jàngal yëfi saay-saay